sëriñ abdullahi mbàkke sëriñ abdullahi mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1907 ci dëkk boobu di ci yéen jolof di doomu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ak ku ñuy wax soxna faatumatu alkubra soxna faatumatu alkubra mi naaru gànnaar la bu sëriñ tuuba seexul xaddiim jële woon gànnaar soxna faatumatu alkubra mi ti moom meññ kii di sëriñ abdullahi mbàkke sëriñ abdullahi mbàkke nag feeñ jamono ci atum 1907 ci weer wii di weeru setembre ci weeru olofa nag moo weeruñ tudde weeru baraxlu bi nag mooy atum 1325 Serigne Touba Seexul Xaddim ci mois de juin ci atum 1907 lañ ko jëlee foofu nag ci gànnaar indi ko nag ci Ceyeen jolo ci mois de juin boobu la def Ceyeen jolo juillet août septembre kii di Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi nag feeñ jamono mu feeñe jamono nag Ceyeen Jolof di ñetteelu résidence surveillée bu waajuram Xaadim Rasuul Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi nag amul kenn nag ku mbokkal waajuru jigéen di soxna Faatu Mato Al Kubra mi benn doom la ci soxna Faatu Mato Al Kubra ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim bi mu matee dal alxuraanul karim moom sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ ndaam abdurahmaan loo ci ndaam daaru xalimul xabiir ci loxoy sëriñ ndaam abdurahmaan loo la jànge alxuraanul karim waaye nag ci njaareem la bind nag lii di kaamilam ci teewaayu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim muy waajuram ginnaaw njaareem nag la ko ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim jébbal rakkam ja maam ceerno ibrahima faati mbàkke mbàkke ndaamal daaru ngir mu jàngal ko xam-xam ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag la nekk ba am nag lii di xam-xam mu jóge waat nag ci waajuram maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru delsi waat nag ci loxoy waajuram xaadim rasuul ci njaareem sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi nekkoon na ku sës rëkk nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim waaye booba itam tuut tànk la bokkoon na ci doomu sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim yu gënoon a nuru seen waajur wa xaadim rasuul ba tax na itam mag ñi nekkoon na ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul gis kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi laataa ñuy xàmmee ba xam sëriñ tuubaa la waaw wala déet sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi dalee na romb ba noppi buñ déggee kàddug sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itim laataa ñuy xam ba xam ku baax ki sëriñ tuubaa la waaw wala déet itim sëriñ abdullahi boroom dër bi dafa waxaat ak ñoom loolu itim taxoon na mag ñi joxoon ko cër bu baax a baax itim loolu itim taxoon na ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim nanguwul woon sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sori ko ndax kat ñoom ñaar lépp loola itam taxoon nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim daa sàmm bu baaxa a baax ki di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ba tax na dawul nangu mu di ko sori dawul nangu itam muy génn ndax yéemu gu mag ñi daa yéemu ci kooku di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ndax nim nuroog waajuram xaadim rasul ba kenn mun leen a xàmmee ngir firndeel ne rek ku nuru woon waajuram xaadim rasul la ba mag ñi itam seede woon nañ ko ndax soo demee ci wolofal gi sëriñ musaa ka bind tudde ko xarnu bi ci bi muy tudd mbooleem njabootu ku baax sëriñ tubaa seexul xaddim bi muy tudd kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ca jikko ja ak melokaan wa ak nurugum nuru woon xaadim rasuul moo xam ci taxawaay moo xam ci waxiin moo xam ci doxiin ci gàttal daal soo masaa gis seexul xaadim gis sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi mënoo leen a xàmmee ci tolluwaay ci lépp moo tax bi seex musaa ka di tudd mbooleem njabootu ku bàkke sëriñ tubaa seexul xaadim ci xarnu bi ba muy tudd sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi noonee mu nuroo woon a ku bàkke sëriñ tubaa seexul xaadim la indi comme seede ba tax na sax boo dégloo wayi bu baax a baax Musaa Ka ma ngay wax ne pambam xarnu bi daal moo del siwaat ci sëriñ Abdullahi boroom dër bi wala sëriñ Abdullahi boroom dër bi moo del siwaat ci bambam xarnu bi kon daal kenn lañ woon ñu teewlu li Cheikh Musaa Ka seede ci sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi ci wolofal gi mu bind tudde woon ko xarnu bi ci bi muy tudd mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim melokaan waa taar ba ak nuróogu sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi nur woon ak waajuram la ko seedeel moom doomu Seexul Xadiim boobu ñu teewlu ko jàpp kana baay mukk benn taxawaay ab doori bamba xarlu bi boo gisee muy samandaay seex bamba ñoo nuroo jataay nuroo yaram nuroo sewaay nuroo deej ci xarnu bi nuroo doxiin niroo waxiin niroo jëm ak meloog doxiin buy dee nga waa ne keneen bàmbaa ci xarnu bi moo di walax njaanu jinaan bu leen ko xool nag ba di kañaan kañaan ni tee bee gën a daan bàyyi ma leel xarnu bi moo doon tab gawam ca moom moo doon njàmbaar gi ci moom seen baay seddale ji koom sedd kole ji xarnu bi maa gën baaraw na zaahiram ndey gaaw a soppee biram mbir ma ca baaye may mbiram mu yor jaloore xarnu bi yàlla nañ ko dolli ay murit te yàlla na raw pexe marit te yàlla mu gidi farit ba toll gaa yi yooyu la cheikh Moussa Ka seede ci sëriñ Abdoulahi mbàkke borom dër bi loolu itam day firndeel na sëriñ Abdoulahi mbàkke borom dër bi ku nuroo woon ak waajuram xaadim rasul la ndax kat bi cheikh Moussa Ka di way nag lii di xarnu bi ci mbooleem doomu seexul xaadimi kenn ku ne bi mu lay tudd ci sa jikko ak sa melokaan moom nuroogum nuroo woon ak waajuram di wax na yàlla buur bi tabaaraka wa taala moo indiwaat xaadim rasul ci jëmm ji di sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi cheikh Moussa Ka na la yàlla fay ci leeral googu nga ñu leeralal kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër gi ak nim nuuroo woon a xaadim rasuul sëriñ abdullahi boroom dër bi itam yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem mu wéy nag nekk nag ci loxoy waajuram xaadim rasuul ci dëkk boobu di njaareem ba ni waajuram génnee àdduna ci le 19 sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nag doog a jóge njaareem ñëw nag jébbal léppam nag magam cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nag bi Touba daarul minnam fa la dëkkee fi mu dëkkoon ci daaru minnam moom sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi moo dend ak kër sëriñ Abdoulahi Jaxate foofu la amoon këram nekkoon fa foofu léppam na jébbal magam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ndax kan moom lay xoole xaadim rasuul ginnaaw bu mu ñëwee Touba nag ci quartier bi di daarul minnam ci wetu magam ji Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke kii di sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nag wéel na am njàngam ci sëriñ Habibu Mbàkke imaam ngir gën a giiju nag ci grammaire arabe ndax sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nag ku ba ci mois de novembre ci atum 1929 ci mois de novembre ci atum 1929 nag la ànd juróomi kilomètre ginnaaw Touba mu sanc nag fii ñu tuddee Daaru Rahman Daaru Rahman nag bokk na ci tur yi ñu koy woowee ndax kat ci ci yéen la feeñee jamono ci atum 1907 ci ci yéen googu nag waa juróom xaadim rasul amoon na fa ñaari kees ci kër ga mu fa nekkoon genn gi mu tuddee ko Daarul Quddus gi te sitim mu tuddee ko Daaru Rahman Daaru Rahman googu nag la fay dëkkam bii mu tuddee Daaru Rahman ndax kat la feeñee jamono ci atum 1907 te waajuram amoon na fa kees gu tudd daaru raxmaan ginnaaw bu mu sancee nag dëkk boobu di daaru raxmaan ci mois de novembre ci atum damoon na seeti nag jàmbaari ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di sëriñ mbàkke buso mu boole ko kenn ci boroom xam-xam yi nekk foofu ci moom ngir itam mu mën koo wétti li ci dëkk boobu di daaru raxmaan ci la ko kii di sëriñ mbàkke buso boole ko ku ñuy wax sëriñ cheikh faati kandi buso sëriñ mbàkke buso sax mi ngi wax sëriñ abdullahi mbàkke boroom dong nag lañ ko ëppalee waaye xam-xam moom macha allah sëriñ cheikh fatikandi buso moomu nag nekkoon nag ki di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ci dëkk boobu di daaru raxmaan yoroon na fa itam daara ci dëkk boobu di daaru raxmaan tax na sax na ñu wax ne sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itam daana jàngaate ci moom waaye daal li wér te wér mooy jooju mu fa yoroon mbooloo mi sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi yoroon di leen tarbiya moom moomu moo leen doon jàngal lii di xam-xam ak alxuraanul karim foofu ci daaru raxmaan sëriñ cheikh fatikandi buso moom sax bi mu nekkee ci loxoy sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi te sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi joxoon ko daara ja moom moomu du sëriñ Cheikh Faati Kandi Bousso def na ay way nag ci sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi soo delloo ci way yim def nag ci sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi mag ñuy wax jikkoy sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ak melokaanu sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi wayu yaatu daal da sëriñ Cheikh Faati Kandi Bousso jagleel doomu Cheikhul Xaddiim boobu ci taqoogum taqoo woon ak sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ñu teewlu ko inna abdal azizi fi ومعت بماء فرات جوده كالوطفى ووجه حبيبي دونه زهرة من النيرات قلبه واليدان رود وريق فحصام فديمة للعفاة عند دار الرحمن دار مقام دار عبد العزيز سلفيدات تلك دار قطوفها قد تدانت وهي دار الخيور والبركات حبس عبد الله كان بناها بالتقى والهدى عن الترهات ساكنوها في خ حقة وحبور طنتياب الكباب والثمرات فكؤوس ملأ بصرف أتايا بأباري قبن سمتوساتي وندام عبد العزيز شراف فيدير الكؤوس والتاسات نحو جيفال نحو فك حشاء في بالمود مدرة المكرمات عندنا ما تهواه نفس اللذيذة وما قد تلز عين الآتي من يزر دارنا بقلب سليم يرجع بالمنى وبالطيبات فسا salaamun alayka fi xayri daarin ma tanazzahta fii tihi way yooyu nag la sëriñ Cheikh Faty bu Bousso defoon nag ci sëriñ Abdoulahi Mbacke boroom dër bi mu wéy nag nekk daaru raxmaan di bay di liggéey di tarbiya mbooloo mi ko topp ngir ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim ay at nag la def nag ci dëkk boobu di daaru raxmaan taxawal nag li ñu tuddee ay siyaan ndax kat booba kat ci daaru raxmaan googu sëriñ Abdoulahi Mbacke boroom dër bi gasoon na fa lu tolloog ñetti siyaan siyaan yooyu nag sëriñ Abdoulahi Mbacke boroom dër bi ci seexul xaddiim ndax kat soo demee ci xarnu bi bi seex Musaa Ka di wax melokaanu seex Abdullahi Mbàkke boroom dër bi ma ngay wax ne itam ku nangu woon a liggéey la ku xarañoon la ngir nurugum nuru xaadim rasuul ci liggéey loola itam taxoon na ñetti siyaan yooyu sëñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi xëttale leen ba ñetti siyaan yi xëttaloo ñetti siyaan yooyu nag bi mu leen xëttalee kii di sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi nag taxawaloon na fa lu ñu tudde ab dër muy toolub jardin toolu jardin boobu sax tax na tur wii ñu koy wooye muy sëriñ Abdullahi boroom dër woon dër boobu itam ci xalaatu sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi demoon na ba daanañ togge ab ceebu jën ci dëkk boobu di daaru raxmaan lu dul xorom ci dëkk boobu lay jóge ndax sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ginnaaw bu mu xët sottilee ñett siyaan yi yónni woon na ay nit ci dëkk bi di ndar géej ñu dem nappal ko ay jën ñu indi woon ko itam ci siyaan yi bàyyi leen fa jën yooyu itam daanañ jur ci biir siyaan yi ba tax na ab ceebu jën daanañ ko togge ci dëkk boobu di daaru raxmaan lu dul xorom fa lay ñore dër boobu mu taxawaloon ci daaru raxmaan lépp luy meññee fitim daanañ ko bàyyee ci dëkk boobu di daaru raxmaan loolu itam taxoon na autorité coloniale yi fi newoon muy ministre de l'agriculture de l'Afrique occidentale française déplacé woon na France ba ci dëkk bii nag abdullahi mbàkke boroom dër bi ngir yéem gu ko sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi yéem ci pexe mim def ba daanaka yor luñ mën a wax ak dex mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu di daaru raxmaan di liggéey laataa daaru raxmaan itam nag kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nekkoon na itam ci tiib goog mu dul bachir mbàkke ba amoon na fa suufitim daana fa bay ci wetu dëkk bi itam di tuubaa bogo goog cheikh mamadul faadal mbàkke kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itam amoon na fa na fa suufitim ba na fa baye mujj gi daal li ëppoon ak nekkinam ci dunduk sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi muy diggante mbàkke bawal ak dëkkam boobu nag di daaru raxmaan mu wéy nag yor ab dërëm ci dëkk boobu di daaru raxmaan di liggéey di yar di jàngale ak di tarbiya nekk nag doomu ko baax ki sëriñ tuubaa seexul xadiim nekk itim nag ko kiimaane ba tax na itim ñu bare bare bari bàyyi woon nañ xel jëmm jooju di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi bari na itim ci seex si ñu ko joxoon seenu njaboot bari na doomu ko baax ki sëriñ tuubaa doom ba tax na sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi itam bari na ay turandoo lool ci ëttu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim abdullahi borom dër bi itam nekkoon na ko xam ne itam tur yu bare bare bare bari lañ koy woowe ndax ay turandoom dañoo wuutee ay tur yuñ leen di woowe waaye yépp rek abdullahi borom dër bi lañ leen faye ñu mën a ràññee ci turandoo yooyu kii di magam cheikh mamadul faadal mbàkke tudde woon na ko doom ndax sëriñ abdourahman mbàkke bu cheikh mamadul faadal mbàkke mi ngi fi woon nëga ni daaw wala daaw jéew rek la ñu dëddu mu féete woon itam ci dëkk bii di ndakaaru njaay cheikh mouhamadul bachir mbàkke nekkoon itam magam nekkoon xaritam itam tudde woon na kii di sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi doom ndax sëriñ abdul akim mbàkke bu cheikh mamadul bachir mi ngi fi woon te sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi la ko tudde cheikh mohamadou lamin baara mbàkke nekkoon magam itam tudde na sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi doom ndax sëriñ abdu kumba suuna mbàkke bu cheikh mamadou lamin baara mbàkke mi ngi fi te sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi la ko tudde sëriñ abdu kumba suuna moom sax ñu ngi koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram ndax jortu naa ne ci turandooy sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi jamono ji moo ci mag sëriñ soin bu mbàkke di rakkam tudde na itam doom kii di sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi ndax sëriñ abdourahman mbàkke bu sëriñ soin bu mbàkke mi ngi fi woon naga ni daaw sax la génn nag lii di àdduna cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ touba seexul xaddim itam tudde woon na doom itam kii di sëriñ abdoulahi mbàkke borom dër bi ndax sëriñ abdou gasaan mbàkke bu cheikh murtada mbàkke mi ngi fi ñu gënoon koo xam ci sëriñ abdul aziz murtada naga ni daaw itam la génn àdduna sëriñ abdoulahi borom dër bi la ko cheikh murtada mbàkke tudde woon lii di cheikh yi itam ñu ci baree bari tudde nañ ko doom doomu maam moor jaar bi ñuy wax sëriñ moor soxna tudde na ko doom ndax sëriñ abdullahi mbàkke yàllaay buur mi ngi fii te sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi lañ ko tudde sëriñ abdullahi mbàkke yàllaay buur mi sax moo toog toogaayu maam moor jaara sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma di doomam tudde na sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi doom ndax sëriñ abdu xaar mi ngi fi di sëriñ abdourahmaan mbàkke bu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma sëriñ abdullahi mbàkke borom dër bi lañ ko tudde kii di sëriñ moor mbay siise bu njaareem tudd na sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itim doom sëriñ moo xari ñang bu kër ñang itim duppee na doom kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ ñaan jóob bokk ci jàmbaar yi toppoon cheikh mamadou lamin baara mbàkke itim tudd na sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi doom ndax sëriñ abdullahi jóob bu sëriñ ñaan jóob mi ngi fii sëriñ ñaan jóob moom sax wóllërew sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi la woon ba tax na bi mu génnee àdduna cheikh mamadul mustapha mbàkke mi wóotu woon xaadim rasul xamoon na seen diggante moo sàkku ci sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itim mu taxawu sëriñ sëriñ ñaan jóob ngiru kóllëre sëriñ moodu awa balla mbàkke bu maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaritum tudde na sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi doom mi ngi fi sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi la ko tudde sëriñ moodu assu bu sëriñ moor bu maam moor jaara tudde na kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi doom sëriñ maxtaar mbay kayre tudde na sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi doom ndax sëriñ abdullahi mbay sëriñ dër bi la ko tudde ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu tudde sëriñ abdullahi abdullahi mbàkke boroom dër bi doom xam naa ko bëgg lim kuñ tudde sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi daa juum loola itam tax na ay turandoom wuute lool ay tur yuñ leen di woowe ndax ki ko cheikh mamadul bachir mbàkke tuddee sëriñ abdul akim lañ koy wax ki ko cheikh murtada mbàkke tudde sëriñ abdul aziz lañ koy wax ki ko sëriñ moor soxna tudde sëriñ abdullahi lañ koy wax ki ko sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma tudde ak cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ abdourahman mbàkke lañ leen di wax lii di ay turandoom moom bari na ay tur yu baree bari yuñ leen di wooye yu wuute waaye lépp nag boroom dër bi rek lañ leen faye njabooruk sëriñ tubaa seexul xaddim gu jigéen gi itim kii di sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itim ñu ci baree baree bari tudde na leen doom ñu man cee ràññee soxna maymunatu mbàkke soxna muslimatu mbàkke ak ñeneen ak ñeneen kii di soxna muslimatu mbàkke moom wóol réew sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ba tax na feeñ na lool ci njabootuk sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ñi bokk ak waajuram waajur di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru cheikh ma sàmba mbàkke sëriñ aafiya sëriñ balla coro ak ñeneen ñii ñëpp nag waajur lañ woon ci sëñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi waaye tim ay kóllëreem lañ woon ba ci maam Cheikh Anta Mbàkke borom dërëm ak ngërëm maam Cheikh Anta Mbàkke moom wóllëréew sëñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi la woon ba tax na doomam ji ñuy wax soxna Daba Mbàkke bintu maam Cheikh Anta Mbàkke sëñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi dëkkoo woon na ko ba tax na am nañu njaboot maam Moor Jaara magi mag lu ëpp ci njabootam wóllëréew sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi lañ woon ba tax na soo demee ci njabootu maam Moor Jaara sëñ Abdoulahi Mbàkke yi bari dër bi lañ leen faye kii di sëriñ Mor Kayre bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim foboon na ab taawam bu mu faye woon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim di ku ñuy wax sëriñ Cheikh Ahmadou Kayre jébbaloon ko sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi ngir mu yor ko sëriñ Cheikh Ahmadou Kayre moomu sax ci loxoy sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi la génnee àdduna loolu itam taxoon na waajuram wow di sëriñ Mor Kayre doon ko jaale kim ko jébbaloon di sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi ginnaaw bu sëriñ Cheikh Ahmadou Kayre moom génnee àdduna nekkoon taawub sëriñ Mor Kayre sëriñ Mor Kayre itam doon na ko jaal na kii di sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi doon ko dëfalaale ndax ma nga koy wax ne kat kii di sëriñ Cheikh Ahmadou Kayre moomu nekkoon sama taaw ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim rek moom moo taxoon ma jëloon ko jébbal la ko ba tax na génn àdduna googu mu génne àdduna nag ci dëkk boobu di Daaru Raxmaan ci say loxo du sa coobare du dara waaye daal na nga xam ne Seexul Xaddiim dong nag moo taxoon ma jébbal la ko sëriñ Mor Kayre nag ma ngay wax sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi jëlal naa la ko te fam nekk nag bu fekkee ne du àjjana dugalal ma ko àjjana waaye man mii di waajuram bis bu ma ko fekkee sama doom jooju itim nga tàbbal ma itim lii di àjjana ñu teewlu way yi sëriñ Mor Kayre defoon doon jaale waale sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi doomam jooju mu ko joxoon di sëriñ Ahmadu Kayre ginnaaw bu mu génnee àdduna ci loxoy sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi mu di ko jaal di ko dël di ko wax ne sama doom jooju sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim dong nag moo taxoon ma jox la ko waaye tey la gën a la gën a kër gi ñu teewlu way yi ci sëriñ Mor Kayre defoon ci wàllu wolof ya Seexu Abdul Asiis boof naa fi yow ni mu xu yeesal soor may jëkkoon xol du sañ cutuxu moom du la suufeel mukk fam la tegan daa géeg jutul rent ji wax wuute na ak saxu boobee ma lay jox sama taaw gëm gi raw na fi tey mandal ma maag seex ci say def kar ci loxo tegee leer yi la war man Cheikh tàngal nu ci tuut kon Cheikh te xëy man ma seexaat fatte waaxu bexu toxol ko njeem dafa dal ci kër gu mbég bariwul kël ko firdawsi suukar lem la peey ba dexoo ya abdu mbakke dama jër bët bi kar fatiwul tamkem ci ndimbali baatin maa ngi koy saraxu yow am nga baatin bu fatte kay remi bu demee ba guy xelaani sal sabil ne kuy femaxu baatin bi may wax ci yow muy dëgguloo ma sa wax ñu gis ko kuy tegtaloo say wax du kuy tañaxu an xaw ma baatin damay xool tegtaloo li ma ci kaw ma xam nu li feeñ mooy tegtalub lu làqu xad xiila yorafu shay um baatinin ci lu feeñ yemoog la baatinu xaw su niir wa yaa ko saxoo ñu naa di fàttali yooyee orma musla woyof sottil ci xol bi gën wurus u feesi yoxo ku réere yi xorma njeem yow woo ko mu doy ku sopp wàlli ko kii cofeel du tax way yooyu la sëriñ Mor Kayre defoon ngir di jaale sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi ci doom jooju mu ko joxoon di sëriñ Ahmadu Kayre noonu ko sëriñ Mor Kayre nag dafee ci wolof ni la jaale waate itam kii di sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi ci kàllaam ak arab ñu teewlu way yim ko defaloon itam ci arab يا شيخ عبد العزيز قد أتيت لك مذكرا حرمتي لكم وحرمتك اعلم بأني لم أنقض لطول فراق بيننا العاد قد جددت تلك لك ولم أسل بعد بعدي منك أذكركم لطول حب يداككم ومنزلك يا شيخ لا تنس كيريا وعجبك بعد اليوم دنيا وأخرا وهو عاشقك قد جعل في جملة السادة السادات والكرماء فكري ولم يل منهم من يماثلك ظننت أن مقامات الرجال إذا قيست ليقصد كل دون مقعدك أظن ظن يقين طول فكري في الأمور فني على السباق فضلك في الفكر علم يرى بلا تعلمه علما نفيذا بذاك الله أورثك kadaaka taqwa ilahi nnaasi kaana yuri hin min allahi taqwa allahi allamaka kadaaka ibnu xiyaari alawliyaai yara ilma alxaqiqati kullu di manaqibuka وليس كل هداة نيل منسلكم خصصت جملة هذه من وراستك wa yooyu ngeen dégg nag la ko sëriñ Mor Kayre defaloon ginnaaw bu mu ko jébbalee taawam ba di sëriñ Ahmadou Kayre sëriñ Ahmadou Kayre moom nag génne àdduna ci loxo loxoy sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ moor kayre nag doon jaal sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi doomam jooju ci kàllaamay olof ak araab loolu moo nekkoon way ya sëriñ moor kayre nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim la bokkoon te bokkoon na itam ci bindkat yu mag yi mu wéy nag nekk ci dëkk boobu mu gor di daaru raxmaan moom sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi dër boobu mu yoroon nag ci daaru raxmaan laataa mu fi bàyyikoo nag dër bi mujj na fi bàyyikoo ci coobarey sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër ci at mi di 55 la sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi wax ne seetlu na ne daal dafa bëgg bàyyi nag lii di dër bi ci at mii di atum 1956 ca mois de janvier ba tawub ëgg nag amoon na bu méttee métti ci noorub boobu ci la sëriñ Abdoulahi Mbàkke boroom dër bi nag jaaraale suulaale nag lii di dër ba ci tawu ëgg boobu nag la sëriñ Abdoulahi Mbàkke santaane dëkk yi wëroon daaru raxmaan muy kayre mbay kànka mbàkke bawal ak dëkk bii nag di kër kàbbu ñu fob ngooñ mu xuur ma ak mboom ma 56 boobu sëñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nag pataas la fa mujjee bay pataas boobu nag moo nangu woon ba yéem ñu baree bari ci 1957 bayuñu fa dara ndax suul nañ dër ba ci 1958 itam bayuñu fa dara ndax suul nañ dër ba ci 1959 itam bayuñu fa dara ndax suul nañ dër ba ci atu 1960 nag la génn àdduna ci fukki fan yaak juróom ci mois de janvier ba kon laata sëñ Abdoulahi Mbàkke di génn àdduna dër ba jóge na fa ci coobarey sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi dër boobu itam ca pare daanañ ko jaay siitim ci dëkk bii di mbàkke bawal mbàkke bawal googu itam sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi itam amoon na fi lu tollu juróom-ñaari kër ci biir juróom-ñaari kër yooyu moo amoon ci mbàkke bawal lenn ci njabootam fa lañ féete ku bëggoon dëkk bii nag di mbàkke bawal la ba tax na néew na lool sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër xëy ba ngoon te ñëwul nag ci dëkk bii di mbàkke bawal kon ku fonkoon mbàkke bawal la ba tax na itam juróom-ñaari kër am na ko sax ci dëkk bii di mbàkke bawal dëkk bu sell bii itam di tuubaa sëriñ abdullahi mbàkke amaatoon na fi yeneen kër waaye këruk daaru min gennam gi moo nekkoon kër gu gënoon a siiw ci këram yi kër gii nag wuuf jumaay tuubaa ji di kër sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nag la ko moom ndax bi ñuy natt dëkk bi ci atum la 1960 le cheikh mamadul faadal mbàkke waxoon sëriñ cheikh mbàkke gaynde ma di ko xamal ne na fexe daal ba mook sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nañ taqaloo ak kër ndax ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim mas na leen a wax ne cheikh mamadul faadal mbàkke yaag abdullahi mii kat yéenay dëkk ca àjjana loolee nag la cheikh mamadul faadal mbàkke doon fàtt fàttali suñu cheikh mbàkke gaynde Fatma yi ci àdduna bii fexeel booy natt kër yi maag sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ñu dend kër gi sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ko waaye ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag lañ natt dëkk bi ci mois de janvier 1960 la fi bàyyikoo te ci mois de avril 1960 lañ natt dëkk bi ginnaaw bi nag lañ jébbal kër gi moo waral kër sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi wuuf jumaa ji mu nekk nag ku bëgg xaadim rasool moom sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ku fonk ay magam ak di rakkam ngir nag xaadim rasuul seen waajur ba tax na itim nag saa su ne daana ziyaare si barabu waajuram wi xaadim rasuul ba am na benn bi sax mu ñëwoon nag doon ziyaare si barabub xaadim rasuul bi booba nag sëriñ Xamsatu Jaxate mi ngi ci këram gii nag wuuf jumaa ji ginnaaw bu sëriñ Abdullahi Mbàkke wàccee nag ci oto bi nag jubali nag barabu xaadim rasuul bi booba nag kër sëriñ Xamsatu Jaxate ak jumaa ji nag dara nekku fi bu sëriñ Xamsatu Jaxate na toogee këram ku nekk ci jumaa ji nag dana la gis ginnaaw bu mu laajee kële wàcc ci oto bi nag jëm ci barab bi nag kan Abdoulahi Mbàkke la moom xaadim rasul sëriñ Xamsatu Jaxate nag di xamal ñim toogaloon di leen wax ne jamono jii de ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul nag nekkul nag ci barab bi sëriñ Abdoulahi Mbàkke ma la jëm fa bu fa yàggee ma xam ne nag xamul dara nag ci waajuram ndax jamono ji waajuram nekku fa bisub keroog sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi daa dugg rek ci barab bi génnaat lii nag sëriñ Xamsatu Jaxate nag wax na ko bis boo xam ne ni sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nag da doon ziyaare si nag barabu waajuram wa mu wéy nag des nag ci dëkk boobu mu gor nag di daaru raxmaan ba nim génnee atum 1960 moom doomu xaadim rasool bi mi ngi génn àdduna ci dëkk boobu mu sancoon di daaru raxmaan ci feebar bu ko tëral ci diirum ñaar fukki fan ay atam toll ci juróom fukki at ak ñett bi muy génn àdduna ci dëkk boobu mu goroon di daaru raxmaan bisub alxemes la tombeel ci guddi ba set di ajjuma alxamis jooju ci guddi heure ba mënoon nañ koo xayma ci minuit jàpp une heure du matin sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi mi ngi génn àdduna guddik alxamis jàpp fajarug weeru rajab ci atum 1379 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weer wi di weeru rajab ci atum 1379 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 15 janvier 1960 vendredi 15 janvier 1960 ginnaaw bu sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi génnee àdduna lañ ko yëgal na ki toogoon toogaayu xaadim rasuul nekkoon magam di cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke nag moo woolu magu sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi nekkoon itam xaritam di cheikh mamadul bachir mbàkke cheikh mamadul bachir moo taxawu sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi sooy dugg ci armeer yu mag yi ci sa loxo ndeyjoor foofu la sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nekk ci bëccëgoog ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weer wi di weeru rajab ay xalifaam nag nii la tëddee moom sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ cheikh daaru rahman di kim faye xaadim rasul di waajuram moo ko wuutu ci atum 1960 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ kanamam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ndax sag la kat ci daaru raxmaan ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem nag ñum séqal sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi moo xam doom sët ak turandoo ba ci taalibéy sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi nag am na bis buñ koy fàttaliku muy li ñu tudde ak màggal ndax bëccëgug alxemes di fukki fa ak juróom ci weeru rajab lañ mujjee gis jàmbaar jooju di sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi bëccëgug alxemes googu ñu ko mujjee gis la ak njabootam jàpp fàttaliku sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi muy fukki fan ak juróom ci weeru rajab ndax ci guddik alxamis googu ca fajar ga di ajjuma ja lañ ko ñàkk màggal gi nag ñu ngi koy màggale ci dëkk boobu mu goroon di daaru raxmaan ñuy ñaan ci doomu seexul xaddim ba te nuroo woon ak seexul xaddim dañ doon wooyee borom dër bi yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te wanale koog waajuroom wa xaadim rasuul lii di jafe-jafe réew mi